lépp loo xam ne def nañ ko ci ci lu baax yàlla may ñu jukko waaye nag duma ubbi làmb Mamadi te félicité wu ma xale bu ñuy wax saajo Mané ndax euh, fii jamono toll ak xale yi nii ñu doxe euh, yaakaar naa ne war nañu di ñaax xale yi ci lu baax euh, di leen félicité ci lu baax di leen gën a encouragé ci lu baax ndax ku ne xam na ne Sadio Mané taxawaayam ci football bi am na solo ndax dem Europe di fa di fa daan sa doole Euh, te loo am delloo si ko waxuma la say mbokk waaye say dëkk ak say lépp ngay indiwaat ànd ak ñoom dimbali leen dëkkul lëmb nga leen di dimbali ba ña nga xam ne ñoom nga nekkal Europe ràññee la ci prix boo xam ne bii ñu ngi koy doog a def ci li nga xam ne mooy ballon d'or bi euh, muy prix Socrates te ñu koy euh, jagleel képp koo xam ne kii da ngay dox ci yërmande képp koo xam ne kii da ngay dox ci dimbali nit képp koo xam ne kii da ngay dox ci loo am delloowaat ko ci sa bopp dellowaat ko say bokk moom la ñu defal xale bu ñuy wax Sadio Mané ndax boo xoolee euh, diggante euh, boobu ak léegi boo jëlee ker 86 ak léegi Sadio Mané da nga koy boole ci les maire attaquants du Sénégal euh, booy jël diggante Boubacar Sarr Locotte nga xam ne mooy seen doyen depuis 86 ak tey.

waaw ah, bu Kaolack ñoom ñëpp c' est des euh, euh, c' est le meilleur numéro 10 du Sénégal euh, jàpp ko ba nga xam ne mooy Seydou Ba ba te nekkoon police jóge fa dem Jaraaf après dem Europe ñoom ñëpp fii Sadio fa ñu jaar la Sadio Mané mii jaar nga xam ne Sadio Mané tey boo koy fàttali sa xel day dem ci ñu mel noonu ku mel ñoom Salif Diagne nekkoon ñaay bu Pikine ba pare nekk dem dem fi nga xam ne mooy France ak Moussa Ndaw nga xam ne moom mi ngi mujjee Maroc te ñoom ñëpp c' était c' était c' Sénégal yoo xam ne Sénégal. mën na leen fàttaliku ak euh, ku melni ki nga xam moy mooy euh Youm momit xam nga euh, doonoon numéro 10 Sénégal ñoñu ñëpp Sadio Mané ñoñu la bokal euh li nga xam moy meilleur attaquant du Sénégal euh fokk nga duggal ko ci histoire ñoñu waye boy xol Sadio Mané dafa def plus que ça plus que euh, ay nijaayam yoy ñom Jules François Bokandé il a fait plus que ça mooy dellusiwaat ci dëkk bi ñooñu daan nañ jàppale waa dëkk bi waaye fi Sadio Mané yéegal umaanité ci réew mi yéegal ko ci ay bokkam yéegal ko ci dëkku lëmm euh, tabax ay ay ay ay dispensaire tabax ay école ay lycée tabax jàkk foofu ca dëkk ba euh, jël atu ay atu lëmm yoo xam ne kër gu nekk mu dugal fa mu dugal fa dépense par weer loolu def na ko fa comme Sadio Mané kon yàlla yàlla barkeel euh, li nga xam ne moom la ci am ndax Sadio vraiment mënuñu ko tudd Euh, mënuñoo tudd euh, ñi nga xam ne ñoo ko jiitu ak moom pour xale yi roy ci ñoom xale yi nekk équipe nationale sax ku ci ne yaa ngi dimbali say bokk waaye tamit lu ñu gën a dimbali réew mi réew mi jël ko mooy comme ni Sadio Mané di def euh, di tabax loo xam ne lii dëkk lëmba mën nañ caa daje lu mel ni hôpital lu mel ni école lycée lu mel ni ay jàkk ñu ci daje lu mel ni yeneen yoo xam ne dëkk bi yëpp dañ ciy gi seen bokk kon yàlla na ko jik muy nomination boobu di ko gën a félicité mbokk yi tey nag. arène sénégalaise ma ànd maam ceeg euh, Mamadi Diouf l'infatigable nga xam ne mu ngi ci terrain bi toujours euh, moom it euh, di ci liggéey liggéey bu am solo di asalaam.